suratu saar yaa di saaru ñawee di way dëkku makki dafa fële makka la ci doona juróom benn fukk la aaya ta ci kaa benn ci laa sama waxtu ma ci def suñu góor raamaa ni kalaa yi xewal mi naa mu jaam jaara yi kalaa yi xew ci laa jaaraate la wa saar yaa ti gëñi na ma ngelaw ya di way jaqi duur sarwaan ak jaqi bal xaabiraa di gëñi na ma niir ya di way xenum ndox wekaram di muñ di way diis bal jaariyaa di gëñi na ma faxaar ya di way daw ci géej di toron di mu ngi jàppandal ba mu xasimaati géej na ma ci maraaka ya di way séddale amran mbidam wërsëg lu ma doon génn inna maa soxla doona naka la dee ma tëkku leen suuf si dekki dafa defu naa ci dëggu la mu way na diina naka pencam yàlla la waa doona ci kàbbi la moom këré ba samaay géej na waa samaan saa si xubu gi kay borom yi yoon inna kum naka yéen dafa xaw naa ci nekk ngeen ci wax muxtalif yi ci di aji wuute de ñi ne Muhammad waykat la ñi ne jabar la ñi ne bu xaaba la yu ko ko def na soppi am wëlis yonent bi moom bu ko ko soppi am na ko wëlis dëgg de wëlisam jib de su ko xaaral def na alxalaat doon mala ko ni de la si na ñooñu ñoom fi xam rek ñu way nekk lañ ci réew saa woon a way sàggane dañu mbiram àllaaxira yetta na danañu laaj ay aar yow mu ci ana kañ kañ jëm yàlla def yow moom bés ba ñoom su ko mën a def na buggal leen xam ne ci safara de naa leen soo ko ma seen dina tëkkum buggal seen xaaral mi dem buggal da fi mooy buggal mooy xam ne bëtum nekkoon ngeen def tax ñu doon ci yàkkam ci fii ci moom lépp dinañ mu tax yéen naka way ragal ñu yàlla di janaat ci way nekk lañ ciy tool waaye woon way nekk lañ ciy gaale aami dina nit mu ngi way jàpp maa daawam la jox leen ko wala rabum borom seen ci fi yoon de ci na mu naka ñoom kaanu nekkoon nañu xam ne saa di gën jëkk loole xal yi lan nelaw yi mu si di way yooyu de dañ doon yooyu na ci àddina kaanu nekkoon nañu xal yi lan nelaw yi di way néew dina leen di ci guddi maa yaa jaw na ay nelaw seen de daaw nelaw lu bëri ci guddi de guddi de alee seen borom àll guddi waaw mooy borom ba nga xam ne bara ñuy wéete sappe ba ci yàlla de boo bi dafaari ci ngelum ñoom e sax loolu dinañu balu de boo bi amwaali yim ci gis seen xaqun dëgg xaqun xaqali saay di ñaar aji laaj wan maa roome kuñ xañ de boo fi lar de aji nekk la ci suuf aayaatun ay xalam nekk na ci suuf tekk la yoo xam ne mën nañ ca xamee ne su ko def keroog na wéet na mu te wéet na te moom rek am jaamu ko de nit moo dinañu way wóoruña boo fi alfitum ak ci bopp seen yow nit ki sax loolu si ci cas de seen seen daf ci sa bopp après daa tuuti loolu si la ngeen gis ko moo doo gis nit ba tey gisul nit ki ba fi sama yaa ñu nekk rek yaa asamaan nga foofu mu wërsëg see commencé woon naa la def na daan def ko asamaan si la wërsëg bi bàyyi ko mooy taw bi ak liñ leen di dëgg dëgg ëllëg ci yoolam mbugal yëpp ci asamaan la ko yàlla denc de ba waral di sama yi jëñ na ma ci borom asamaan wala leer suuf dina ko naka moom la def na dara leen ko laa ko naa ci dëgg la mu ngi sama nakum jam naka yéen tam te kon da ngeen wax dëgg suuf na ci Ibrahima solo si kam Ibrahima al mukram yi nañu leen di dalal fukki malaaka ñaar la wala fukki wala ñett te jibi la ñu woon di taxaloo ba ñu xaraba yaale fi moom fa xaaral dañu wax ne ko salaamun ni nañ la nuyu xaaral wax moom Ibrahima ne salaamun nuyu wax ñu nekk la ci yéen xaw mun aw ñun ngeen mun karoon nañu di ñu fakk de man de xaw ma leen bara xatam jàng ila ali jëm ci jabaram fa jaatam dikk day jim ci yëkk sami yi wala aji du mu dem indi yëkk du wàcc ko de def ko ci seen kanam seen seen kanam de fa xaraboo sam day ñëw koy day jëm ci ñoom xaara ala taakuluna lekk de ñu bañ a lekk fa awle sa sam nëbb minu ci ñoom dina fii ci bakkanam xiifatan ay ragal de mu daan ñaan ragal gam ko bañ a lekk saw ñoom rek nga daal di ko ragal xaaroo ñu wax ne fa laa ko xam pour ragal de wa basharu wa basharu biñ dëggal ko Alxuraan ci zoro xaalis bi ñu bëri ci xam-xam ñu dëggal ko dana juddoo suñu daal te ku bëri xam-xam day doon ba aqbala di ko jublu imra imraatu jabaram saarata di saratin ci xaaju jabar nga yi waxu di ñëw de fa sakkat tam tas wajaa kanamam wa qaala tam wax ajoosun sa waroon ko xaqi mu bëri ay jërme koo xam ne dafa tomran ko mas da am doom xal léegi am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent jëkkëtam am téeméer at ak ñaar fukk foofu fu mu jëlee doom xaaral ñu wax ne ko kasaari sa bitim na kasaari sa bitim na ka noonu la de xaaral la wax rabbu ki borom sa dina la naka moom woo moom alaati wu moom de ay xale ci jëf teewam alaati wu mooy ay xam ay njiteewam de ala wa salaam ala salaam rajo saw yàlla ñu la ko yàlla rajo bi mooy amin na la baax ma ne ko tam li baax ci mu yàlla baax la jàmm ko bañ ko dem parce que xam yàlla tubaab ci ndox ci moom sax ñu wax ci barke ñu islam na la barke sax ñu la barke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا وخلق وفاتنا وتوفنا بالحق بالحق وآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن قبل كل لا يسوى الصبر أعلم فما خطبكم عليه بالسير أيها المرسلون يكفي يميني yonent yàlla Ibrahima nag daal di wax ak gàncax gi leen luy seen gis naa am lu ngeen di dox xaaral ñu wax ne innaa naka nun ursilnaa yónnee nanu ilaa qawmin jabbaariin mujrimiin ñu di way weddi di ci yonent yàlla lool ñi nga xam ne dañoo weddi ci ñoom lay jëm ko xaral leen de lool si la ñu nanu xaw a xale ci ñoom ñu jaar seen ay laj mi ci nii tudde ci fan muy toog mu tudde ci safara mu xaw a matal nit mu di buñ xamal. waaw dugub tamit jam de ñu ngi amee ay doj yoo xam ne ña ngi ko lakk ca safara ba noppi da doy wu ci nekk xamal nañ ko turu kam wala ala de inda rabbika fa borom ka lil musrifina ñeel ba yàq ñu def ba mu bugal jagle nañ leen ko ngir na nga xam ne dañ doon yàq bu de di laal góor ci dugg fa axraj naa dañu génne man kaana ka nekk na fi aajo dëkk ya dëkk nitu doot minal mu'minina ci way gëm ña waaye ba yàlla bëggee xaaral yéefar ya génne na ña gëm yàlla ba mu musal leen de soog a xaaral nag way wee di ña de waale sama wajat naa fekkunu yaa ja dëkk ya xayra bay di ñeem ñeeg minal muslimina ci jullit ñi de waaye la dëkk bay rëy rëy fekkuñ ba jullit lu mooy yonent yàlla lool ak ñaari doom jigéen mu ngi de na ne génne na ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tudde na leen mu'minina tudde leen i gëm muslimina rek te ñëpp mooy lool ak ñaari doomam jigéen rek ndax dañ daa jëm ci fi topp yàlla wasarak naa tan gasal fiya jagatiye gannaaw xalaku féefariye waaye tan man rek muy fekk rek xalaku fen de yàlla xalak na leen bana si tocc na fa jeexit yoo xam ne ba léegi ku faral bu xam ne dañ leen a alagoon de di la si na ñeex ñax yaxaafu na danañu ragal ala saaba bugal la li moom rek aju metti ba képp koo xam ne dana ragal yàlla su ko jaaree dana dolee waaru dana jox xalami rek te de xam ne nguur mooy yàlla itam te nguur mooy alkarawe ci tey malaaka yi gane ci yoon yonent yàlla Ibrahim yàlla ji ñu tulloot ngóor na nañ Ibrahim dañuy jamaala ji kéefar yi nga xam ne ñooy ñoo weddi lool dañuy taw ci ñoom ay doj yu tuddee ci ban yu ñu ko tuddee doj tuddee ko ban moo la xamal ne doj doj aada yi nga xam rek la waaye nag dañ ko lakk ci safara ba nga xam ne dafa am ak safara ñu di ko taw nag mbooloo nga xam ne ay yàqkat la ñu woon de waaye nag yàlla fekk na ci ñu gëmoon yàlla waaye te foofu mooy ñu néew ci jullite loolu moo la xamal ne képp koo xam ne moomin la muslim la de du safaan ba nag ndax laa yoon démb noonu nañu amal naa mu ne xoolu aslam naa moomin boo gis moomin la muslim la waaye dina nekk muslim te du nekk moomin de bu fi Muusa ñu nekk la ci ci say Muusa daaw déf de nga xam ni fi xisa yi ni tulóor nekk xebra xalam ñeen képp koo xam ne gëm na yàlla ci fekk Muusaa itam nekk na ca xalam ñeen koo xam ne gëm na de arsal naaw ba nu yónnee koy daasaraana mu jëm ci Firawna ba yàlla yónnee yonent yàlla Muusaa mu jëm ci Firawna mu gëmuma ci sultaanin jur lay mu génnu di aji weer jox ko lay weer mooy xetam waar ba tawallaa dem dëkk walit gëm di rukk nii ndax xarem ba raw na weddi di mukki weddi weddi loo xarem ba ne ñoom ñëpp ñu dëgg de rukkul dinañ ko firee xare ndax rukkul xare ci buur mi ngi mel ni pomp ci kër ba xaaral tam wax ñaan Muusa saa yoon Muusa mi de ab jabar la aw maj noonu muy gëmu di tuub di mel de raaw na ne Muusaa mi ab jabar la wala ku jinne jàpp de yaar yëpp sànni na ko ko ba mu fa laajee luy yàlla mu ne ko seen borom borom ñu leen jëkkoon mu ne ko wax ma lu yàlla laa wax mu ne ko borom seen koo xarku mu ne fii ji ne ko jàpp tom-tom li dëppu waxal laa ji rek tom dikkee kaateef ga mu ne njawar la waaw maa ngi doon jàpp ko ci ma lool gërëm ya wala ba maa am doon sànni leen di jàmm ci joxe rek yàlla daal leen jàpp ñoom ñëpp la ko leen di faaw fan doon woo te moom mu ngi mun aji yàggu la mu ne daf ko diggee duñ ko yeggale. gis nga mboolem yéefar yëpp daje nañ ci sànni yonent yi ak jinne dale ca Nuuh ba ci yonent yàlla Muhammad bu jinne wax nañ ko ne jinne ko jàpp. dana wax bi léegi ndax dañ koo dénkante am de lu tax nit naka ma ko bigale woon mi ngi ci xel mu yaaj ci xel rek boo xamee ne xel a nga jëm muy nit ko mat suñu rek yee am xelam rek mu daal di nekk ku jinne jàppale xel mi nag xelam nit danañ ko xëppi ci yaari yo danañ ko xëppi ci lëndëm mooy ku jinne jàpp wala ak njabar wala leneen lu rek yi am xel lu fëkk am xelam rek te du leer bu jóge ci yàlla loolu ak nginne la kooku kooku dox la bu sotti danañ ko fëkk itam ci leer bu bàyyi ko jëppee yàlla ba soo xamee ne fëkk nañ xel ma rek fay dal di yu dina jàppale ñi nga xam nag ne xamewuñ yi fëkk xel xamewuñ fëkk goo xam ne lëndëm la ak fukk goo xam ne leer la buñ gisee koo xam ne fukk nañu xelam rek ñu daal dina jinne ko jàpp def yeneen bii nag mboole feem yàllaa ngi jaar ak ñoom ci yoonu tànn allah yajtabi ilayhi man yashaa wa yahdi ilayhi man yuniib yoonu tànn mooy yoonu jëfbu dañuy ñoom ñëpp dañ leen a jëfbu Muusa daf doon dem di guddi safara rek la ñu jëfbu ko ñoom ñëpp dañ leen a jëtu yonent yàlla Ibrahim dafa gis ci jur yi rek ñu jëf bu kanam nga yewoon ca saaru la naa mun a asaara bii te yàlla ne moom ak kanam yoon sikki na nga xam ne booba wax loolu bu juba de Muusa nag ba nga xamee ne ñoom ñëpp dañ leen a jëtu waaye ca saasa dañ leen tarbiya ba ñuy dellu mataat ndax ñu mën a dem ci bën bi ngay di def naka noona jaam yàlla yi yàlla tànn dana ci jëf bu ñam topp sama jaam bu dañ di ma jegeñ lu ko ma topp ko ma ko nekk toppee nekk yi moom ci njël benn laa budda leer ak yàlla dana ko fëkk ba xelam mu soppeeku nam gisee woon doo doo nam gisee woon de ay soppandikoom mu soppeeku su ko defee ñi koy seet ñu ko gisee dañuy wax ne kii ginnee ko jàppale waaye nag ku ci xasoo mat du yàgg ci loolu de yàlla daf koy daal di gëloo di aar mu wuri gëlu ci jiw yi ànd ak leer ak yàlla di jox fii ku nekk xam de fii yàlla xam fii mbindeef yi xam di lee wër na ko itam mbindeef yi nekk ñu ci def kooku mooy boole jëf bu ak suloo kooku moo mooy ku mat de waaye sànni gi ñu di sànni ak nginde duur duñ wax ko rek da dañ koy ci ñoom de fekk nañ ñooñu feeñal nit yoo xam ne xam nañ ne fëkk nañ seen xel ca wala waxtu waaye nag dina jàpp leen ndax la fëkk xale du lëndëm la fëkk xale leer bu bàyyi jëf ci feer yàlla la woo waa mu ne wa fi ah dina aji nekk la ji alak ak ah kaaw gi alak gi yàlla alak ah ña dañoo nit yonent yàlla xool nekk na ca xalam de di arsalna ba nu tooyee alayhim ci ñoom arriixa ngelaw la ala xëy la yaa ji gërmeel ba yàlla boyalee ci ñoom ngelaw loo xam ne du gërmel la du du ko wenn niw du taw du du ñox du du togg garab mooy dabboor maa tasaru defat ci mu min shay'in lépp ci bakkan ak alal ak lu mu romb alay ci moom illaa jaale lu nga mu jël na mu ko garab yi mu mun a kaa yax yu bu na ko def ngelaw loo xam ne ak xiib la par par la du romb lépp ndem bakkanam luy dund la ndem leneen lu may dana ko alak ba mel ni yax yu bañati ko def yàlla dina ci alxuraan juróom yatti ngelaw yananti ngelaw yi diw la ñuy amee yananti ngelaw yi bugal la ñuy àndal ngelaw lu ci tudd nga xam ne nii lay ànd ak dañ koy jamoo ngelaw lu ci tudd nga xam ne mbugal lay ànd ak dañ koo mu faral soo gisee ngelawal mu faral ca alxuraan rek mbugal la ànd ak tudd na murtalaat tudd na zaariyaat tudd na mubashiraat tudd na lawaaqiyaat jasaaru hijri yooyu yëpp ay ngelaw la te dañ leen a jàmm ndax ngelawal jàmm dafay tasaaroo xoyof lépp moo tax mu mel ni ngelaw yu bari la tudd na ngelaw sarsar tudd na xaqim bile tudd na jasaaru israel waaw xaasif ak xaasif ñoom ñëpp mu far lañ daw lu ci nekk mbugal la àndal yaari ngelaw yi ci jéeri la jagoo yaari ngelaw yi ci géej ah sa xaase ci ngelaw lañ ci géej la jagoo ñooy suuxal gaali ñu ñaadal sa sara aqim nag jéeri ñoo jagoo ci jéeri de loolu moo tax ngelaw lu ñëw yi ngelawal mbugal ngelawal mbugal itam daf koy mu faral ndax dafay booloo def jenn doole yoo xam ne du du lenn la moo tax ñu di ko mu faral de alxuraan lépp baax a léebu boo ci gis mbugal la àndal lu mooy biri in fayi bati ñi ca yoonu fayi bati dañ ko naatal moo ko gën a jaar xeetu mbugal boobu nekkoon rek jëleen ba génn waaw sëglu ba génn sax jëleen bu teye taxaw ñoom ñëpp ñu rat luñ soxla ci neew waaye dafay xawante ñoom naan waaye de gis boo xamee ne moo ay kenn du rooti de mu naan mbooleem seen yëpp boo déggee moom mu gën a ngi ñerwat mu ne leen jëlee ma yàlla la nag yàgg yàgg bu leen ko xos daal moom mooy waa ji lu ñaaw ñun tey laa rek yàlla ci gën a mën yàlla ñoom ñu daal di ko xos xos ko comme comme que parce que doo yàqu ba pare ndox sax mu ngi dëgg loolu tamit ñu ñëw ne la ayoo jëlee ji noonu am na ji ba tëlee dara ñu ci ba tànn loolu xam nañ ko ba pare jël na wàllam mu ne leen lu wax ñu ne sax na ñetti yoon de ñu ngi jee ñaax na ñetti yoon ñu ne ñetti sama lekk dañ jaay ah ñu ne loolu mën naa am de waaye daal ba ñetti fan yu jeexee gis nañ ni ñu mën a gis de waaw xaw ma ñu lay wax noonu rab yi ñu jëlal borom teel waaw xaw ma tuum ba jàpp leen saa sama xaaj bi ñu jëlee ñu jël xaaj leen gannaaw ñetti fan ñoom ñëpp ñu dee waaw te ñoom ñëpp ñu naan dañuy jaww ji te gis nga jëlee dañuy ñu gannaaw lay wax ñoom la wax dëgg faaw naa fi ñu ñu daal naa buur kenn mën na buur fa nga nekk ba maa xaaral ñëpp ñu mën ko fi naan di koy dimbalante de te xew ci àddina buuf buuf ñu ci ko wàcc ci yow say bokk jóg ñu dimbalante loola xew ba de kenn dimbalewut kenn de waxaw ma waxaw ma nooyeen jàngatal solo moomun wala waxaw ma nooyeen alak nañ ci moomun de ci mooyeen itam yàlla alak na leen seen ak alak moom nekk na alak ñaar ñi nga xam ne dañ ñëw gannaaw seen de seen xaw ñu jëkk alak ñu ñëw de te moomun moo jëkkoon ñoom naka ñoom daal mu nekkoon nañu xaw ma nuyu parce que danañu wéy dina dox yàlla rek asama tabax nañ asama wane naa tabax nañ ko ci ay diim ci kàttan de wéy naa naka noonu de moo ci woon ah wéy dëgër lañu ci luñ namm de asamaan ci ngeen di gis yàlla ko tabax rek ci ay loxo loxo bu ko yàlla ñaaree ci boppam boo di ñaari yoon lañ ci am ci jëf ña dañuy doyal xam-xam ba jëm ci yàlla te ko loxo rek nga xam ne loxo la yàlla xam la ñu mujj ñi nag ñoom dañ koo taawee loxo yàlla ñu jiyee ko kattan yàlla ne waaye kon ay jiw dana dana lënd de ndax loxo ñaar lañ ci xam waaye loxo yu bare bare yàlla na lu mën a am daal yàlla xaw a asamaan fi ci loxo xaw ma ñaari loxo xaw ma ñeent xaw ma juróom-benn waaye daal moo tabax asamaan fi ngeen gis de wala wala suuf wala maa laal nañu ko kare ñu ne kaman yàlla Muhammad Nasiru aji waade la ñu digul ci ci ci waade la ko ñaan leen li ñu ci defum de man ñu di wax ak yéen nag ay aji waade ci bàyyi ko ci yàlla jëm ci yéen de wala ko yàlla bu leen def maa la ànd ak yàlla ilaan yàlla xara jeneen bu leen fàkk yàlla bokkaale ñu ne kaman Nasiru aji waade la mu digul ci ci ci waade yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di waar daw leen jëm ci yàlla topp ko bañ koo moy daw leen jëm ci yàlla mooy wéetal ko bañ ko fàttal bokkaale loolu laa leen di waale saalika naka noona maa saa parce que dukkal àll dina ñaaña na xam ni way nekk lañ ci sëgeen ñu ndox la ci woon yaa xaaroo dara ko wax ñu ne saa yor naa ñu jabar la moom aw ma ci moom ñu def ci ñeen la rek ñu ne ci suma sawara aw ñu dem laaj nañ ko yàlla dafa am ci ñeneen ci ñeen ko jàpp rek ak waa xaw naa ko ñoo doon kente ci ci moom waxaa dañ koo doon kente buñ def parce que xew lay topp ne ci ñeneen ci ñëwee wax leen ni ci ñeen ko jàpp waa tey ci ñoo aw ñu dañu saako ñu way daw rek léeg-léeg ñoom ñëpp dañoo bañ ci daw rek moo tax seen wax di dellu parce que wala te yow yonent bi anam wari leen maanaam da ngay yow man loolu ngay ci yàlla de yàlla ne yonent bi yow dëgg leen te xam ne am la ca àngale yow yaa yow ma ci yéen soo dal yi waaw kee tam la waaw xooloo bee dafa ne mu gën a ñëw de moo tax yàlla dalal ko ne ko zakir waa teel a nga fa dikra naka waa tan xaw ma mu jëriñ ak mu ngi ñëw jëm yëpp ba ne dëgg leen mu defe ne dañ leen di ko gaala mu ne ko waat leen de ak alxuraan waaw dama njëriñ yëpp bu gëm yàlla de beneen na ne ko fa sakkir na fa ati sikra yeeru waade yeeru waade gaa ngi jëriñ ñu soo waade junne téeméer na mu bëj wala soo waade téeméer fukk na mu ko boo waade fukk kenn na mu bëj booy waade de waade dana gëm dana jëriñ na xam ne tey ñu gëm yàlla de bu ma xalaat binduma ak junne junne yi wala saa yu nii gaa yi jaamu doon yi dara ngir nañu jaamu ma rek yàlla moo fi ñu la tuddee yàlla du bind ci xel la laam gi laam laama xayru la laama xaayif la benn laam nga war a gëstoo ma pax doo ak dara yàqoo la mu matoon waa ko li nga xam ne yàlla du tuddee jaamu yi yeneen nit mooy ñu tuddee seen jaamu yàlla ñu mel ni daf leen a dundoon ñu tuddee seen jaamu jaamu yàlla waaye wax yàlla ak jëf yàlla dara mel la naka jëf yu jëf kon nag ilaa di abudooni dara ngir la ma digal ñu jaamu ma wala ilaa di abudooni dara ngir ñoom xam ma def yàlla bi ñu bind bi léegi di tuur ci daara su ma ñu jaamu ko te jaamu ko mooy ñu xam ba def buur yàlla buur la buuri àddina yi seeni nit dañ leen di séddale ñetti xaaj benn xaaj boo xam ne dañ leen di sox ci soxla yi ñuy liggéey nit yi bokkul yi ñaa nga fay ñaa nga yaxamte ñaa nga defi ci mu ne am nañu